Euh, benn cas bi ñu defee investigation yi il s'est trouvé am na yeneen cas yu nekkoon autour de sa cas ensuite il y a eu euh, boo xamante ne district sanitaire de bambay moom la notifié cas bi nag dafa jaar ci Diourbel ci benn poste de santé bu nekk ci district sanitaire de Diourbel ñoom ñoo ko notifié mais nag bi ñu saytoo cas bi dem wër ko xool ko ci lañ xamante ne moom xale bi amoon cas bi poliomyélite bi mu ngi dëkk bambay donc noonu la demee benn cas boobu la ñun nag def nañ li ñu wax a def mooy jóg nañu dem ci askan bi dem ci village boobu wër yeneen cas yoo xamante ne mun nañ am même feebar bi def nañ ko euh, après investigation benn cas boobu kese la ñu gis naa nag ñu ngi euh, programme planifié def euh, riposte bi mooy rattrapage par rapport ak xale yi nga xamante ne bénéficié ñu ci ñàkk boobu ci ci ci gox bi. ñaata donc on a recensé ñu ngi ñu ngi recensé lu ëpp cent 3718 xale yoo xamante ne ñooñu la ñu war a ñàkk ci ci rattrapage bi mooy xale yi nga xamante ne war nañ leen a ñàkk ci 3 jours campagne riposte bi ñuy def au niveau de toute la région de Diourbel.